asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi tedd yi ñuy seetaan ñu ngi fii ci Touba ci quartier bu ñuy wax Touba Riyad Touba Riyad nag di quartier boo xam ne Serigne Makhtar Sylla moo ko sañ Serigne Makhtar Sylla moomu nag Serigne Mariama Kunta soxna soxna soxna Marema Kunta mi way juram euh, Serigne Touba mooy way juram moom sëñ Fallou ñoo bokk wenn way jur euh, Serigne Makhtar Sylla moomu nag ab taawam lañ fi fekk si muy Serigne Fallou Sylla mu sumb fi liggéey boo xamee ni nii weesuwul liggéey bi nga xam ne moo taxoon Serigne sañ ci dëkk bi mooy jàngale ak jaamu yàlla euh, tey jii nag ñu dikk seetsi loolu ngir bëgg mu wax nu ci liggéey boobu fi mu toll kon sëriñ bi bala ñoo tàbbi bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu yéen bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi sëriñ Fallilou Sylla Maxtaar di doomi sëñ Maxtaar Sylla mu soxna Mareema Kunta Mbàkke moom sëriñ Tuubaa Xaadimul Mustafaa soxna Mareema Kunta itam noonu nga ko waxee moom Cheikh Mouhamadul Fadal ñoo bokk ñaari waajur di Serigne Touba ak maam Awa Bousso barab bii ngeen toog nag ak jumaa ji ñu nekk ci biir jumaa ji lépp dañ koo kofle li jumaa ji rëy rëy lépp betoo ak fer la bi ñu fii ci minbar yi ngay séen ci la sëñ Adama Jaw mii ne minbar bi moom nañ wut ay mool def ko fi ndax bu ëllëgee ñu mën a xotti miir bi jaarale ci ay fiil yoo xam ne fiil yi den ci kanam yëpp ñu mën ko cee def ndax bu ñu ko defee béton bu boobaa lii la sëñ Matar Sylla tàmbalee liggéey jumaa ji lii mooy tàmbali. comme euh, gis nañ ne liggéey bi ku ko xool ni mu toll euh, sumb bi nekk na sumb boo xam ne ni jàmbaar doo nga ko mën a def ndax rëy na yaatu na te wér na euh, gannaaw bi mu fi jógee na naka ngeen mën a naka ngeen taxawal liggéey bi xam nga sëñ Matar Sylla day jàmbaar ndax man maa ngi mbooleem samay rek biñ matee dal jàng sëñ mataar dañoo jël jox ñu sëñ saaj mm-hmm. ñu nekk kër sëñ yi di fa jàng di fa tërbiwoo di fa defee lépp man mii di wax ak yow am naa ñaar fukki at ak juróom-ñaar kër sëñ saaj mm-hmm. ci jëwri ni sëñ saaj yi yoroon daara yi sëñ yi ci laa bokk mm-hmm. ba daara ji ñu wax daaru raxmaan ñu naa ko daaray cinq ca xelkoom daara jooju fa laa mujjee bi nga xamee ne sëñ Matar tàmbali na liggéey bi ak ñoom sëñ Adama Jaw ñii boobu man ci daara ji la ma fekk waaye sëñ Saliou kenn daa xamul sëñ Saliou kenn du moom bi mu demee ba mu leer ko ne liggéeyu sëñ Matar si la mi ngi bëgg a mat dafa yónnee woolu ma ma ñëw ma ne fii kat li nga fi doon def mat na dama bëgg nga dem jege jël ma sama baay te xam ne sa baay xam ne mooy sëñ ci yow boo demee lépp loo xam ne bu sëñ Touba nekkoon ci kaw suuf danga ko defal danga ko defal sëñ Matar si lépp loo xam ne boo ma gisoon man mii danga ma ko defal na nga ko defal suñu mataar si la daal di woo ku ñuy wax sëñ Saliou njurul moom sëñ Abdou Lahat boole ko man am as ab lim bu mu ko jox ne ko boo demee ne ko yeesali njëbbal ca baayam te toogal ma ci roon baayam di déglu ay ndigalam loolu lan 2003 la lan 2004 lan 2005 lan 2006 lan 2007 lan 2008 ci la sëñ Mataar si la wàcce ab liggéey bi mu wàccee liggéey nag maa njaboot gépp ñu xam ne ñoom sul ndam mooy liggéey bii nga xam ne moom la fi sëriñ bi tàmbali woon ñu fas yéene ko àggale liggéey bi fi sëriñ bi tàmbali woon nañ ko fas yéene àggale ndax loolu rek mooy su ndam ci àdduna loolooy su ndam ci àdduna ca laa fàkku nag ne ñoom suñu aadama népp nu ngeen doon doxee sëriñ bi fas yéene naa ko doxee ak bëgg naa daal bu leen ma yërëm ci genn fànn ndax man bëgguma mbubb bëgguma tubay bëgguma ay dàll bëgguma dara li ma bëgg mooy yëkkati caabi jumaa ji jox ko ki fi nekkal sëñ Tuubaa ne ko liggéey bi sëñ Matar Si la doon liggéeyal sëriñ Tuubaa kat caabi yaa ngi nii liggéey bi mat na ndigal loo ci loxo ñu jëfandikoo loola ci laa jëlee engagement ngir fas yéene àggale liggéey bi waaye maa ngi njaboot gi fu ba adduna bi fu baree bari teg naa fa sama tànk di leen wax wàllu liggéey bi ngir bëgg lu ca waaye mën a def rek nga def ko ci waaye sëñ Matar Sylla bi mu fiy jógee booba fekk na jumaa ji raase na bañ tàmbali poto yi ci biir ak arc yii booba tàmbali nañ ko sëñ Matar la jóge fi ndax booba wàññi jumaa ji weesu na te àggale ko mënta ñàkk te booba suñu pexe ba bareegul waaye sëñ Tuubaa nag dimbali nu lool ci xam ne nit ñi buñ gisee liggéey bi moom lu ñu mën rek danañ ñu tàmbali di ko leeral nit ñi ndànk-ndànk may nag lépp lu ma am lu ëpp añ ak reer ci liggéey bi laa ko boole ko daaray alxuraan joo xam ne nag la ma njëkk a bi sëñ bi jógee moom damaa xam ne liggéey bu toll nii ku ko sémb ci ab koñ doomi jullit yi fa ne wal nga leen a préparé jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ba bu ëllëgee ñu mën a yoral seen bopp jumaa ji sama kër gi ma dëkkoon bi sama baay di dund ma jël kër gi def ko wax fu def ko daaray alxuraan wut ay jàngalekat natt leen ba wér na ma nit li ma bëgg mën nañ ko ma jox leen daara ji ñuy jàngale ngir doomi julli di fi nekk bu ëllëgee bu jumaa ji noppee buñ soxlaa kuy xutba ñu mën koo am suñ soxlaa kuy jiite ñu mën koo am suñ soxlaa kuy naafile ci weeru koor gi ñu mën koo am lépp lu lislaam di laaj ci li ñu war a def rek doomi kon bi mën koo defal seen bopp lii laa préparé moo tax daara alxuraan jii ngay gis nga xam ne fa la njëkk a jaar gone yu bari jàngee nañ fa ba a tabaarakallaa ñu ngi ci école suñu mutalaay di àggale ñii seen àllu àgg na ñu dinañ ñu ci des itam ñu ngi fi di jàng kon daara alxuraan la jiital li jiitalee daara alxuraan bi ba noppi nag soo ko jël ji teg ci nag waaye liggéey bii daal li nga xam ne moo ci gën a ñor mooy na ko jullit yi gis rawatina murid yi ba mën a dugal seen loxo ci biir njëlbeen bi waa kon ñoo fi nekkoon di jàng waaye bi nit ñi xamee ne daara ji njàng mi mi ngi tege ci aw yoon. ñu baree bari dañ fi indi seeni doom rawatina ñi aju ci kër gi nag nga xam ne ñooñu moom kër gi seen buntu ci sëñ Tuubaa ñu ci bari indi nañ ci seen doom ne boo demee ci daara ja mbooloo ma nga fay fekk amut yalwaan amut lépp mën ni maa koy defal sàkk lu jenn ndimbal itam la ndax moom bu fekkee da nga ne mooy sama maam te muy dëgg ci te nga fas yéene tege ci yoonu siraatul mu sàkk ma ci ak jub loo dundee moom sëñ Tuubaa dana la ko gàddul ba koy sëkk kon ñun sëñ Tuubaa mi ngi lay gàddul li nga xam ne moom la ñu war a dund ñoom njaboot bi li ci des nag mooy liggéeyu jumaa nga xam ne lu ma ñetti téeméeri million jëm ñeenti téeméeri million def nañ ko ci te lu mu néew néew danañ ci defaat lu man ñeenti téeméeri million liggéey bi daal bëgg naa nit ñi gis ko moom ba mën cee dugal seen loxo bëgg naa nit ñi gis ko ba mën cee tàbbal seenu ñax ndax liggéey bi du liggéeyu Fallou Sylla du liggéeyu rakki Fallou Sylla ñoom liggéeyu bi yàlla la boo xam ne lu yàgg yàgg ak ku fi mën a nekk rek bu ëllëgee yàlla rek nga ko fiy bàyyi jumaa ji suñu borom tabaaraka wa taala ko moom sëñ Touba itam loolu dong moo doonoon ab liggéeyam ndax sëriñ bi muy jóge Mbàkke di ñëw Touba gii seet dëkk bi ba gis ko nekk fii jumaay Touba ji nekk tey ab ak mbébéku nekkoon fa ay mbokkam yi ko fi fekk ngir bëgg koo delloo ji woon mu di leen wax pakk bi jaayante naa ko ba suñu borom jox na ma ko booba kenn mënu ko ci àdduna waaye boobu la fi sëñ Tuubaa jublu woon mooy rawale ak njabootam ci teg leen ci yoonu siraatal mustaqima ba bu ëllëgee ñu mënal seen bopp mënal seen seeni bokk te lépp ñu teg ko ci diine lislaam waaw wax ko ci tàmbali bi ne sa sa sa sa maam dafa jaayanteeg sa way jur dafa jaayante ak suñ Tuubaa ngir dëkk si Tuubaa suñ Tuubaa ci ay bindam wax na ne waj'al buyuti kullaha masajida kon mën nañoo wax ne lenn la ci néeg yi nga xam ne moom la bi doon wax naan waj'al buyuti kullaha masajida waaw loolu li ma la koy firndeel ma la ciy njëkk wax ci loolu mooy gis fii jumaay Tuubaa ji nekk suñ waajur yi nga xam ne moo tàmbali woon liggéey jumaa ji way juróom wa soxna a Kunta fii jumaay Tuubaa ji nekk fi la gane jamono saa su ne da ngay dégg ñu naan sëñ baara ci jumaa ji la ganee jamono waaye sëñ baara bi muy ganee jumaa ci jumaa ji jamono soxna ma kuntam sëñ Touba itam ci jumaa ji la ganee jamono sëñ Touba dafa jóge Daaru Salaam rafaatale ko maam Seex Anta ñëw sanc fii bi muy ñëw ñaari la fi indaale ci li ma bëgg a leeral mooy ay soxna muy soxna Aminta ak maam Awa Bousso soxna Aminta Lo yor sëñ Modou Moustapha maam Awa Bousso yor sëñ Fall ñu teg ci diir bi néew sëñ baara ganee jamono ñu teg ci ñetti weer wala ñeenti weer soxna Marème ma yi gane jamono ci maam Awa Bousso liñ naan diine lislaam saa su ne jigéen a ciy njëkk a joxe bakkanam ca la soxna Aminta moom joxe bakkanam bàyyi fi ay doom ndax Sëñ Tuubaa da leen woo ñu bokk toog mu ne leen su ñetti ruu yii de am na ko ci war a dëkkaale ji ak boromam ma Matar Si la nee na maam Awa Bousso njëkk a wax ne man lay doon soxna Aminta Lo daalu ci seen tànk daana ko ñaari doom dong laa fi bàyyi muy Modou Moustapha mi ak Baara mi leer na ma ne li leen soxna Awa Bousso mi mënal man mënalu ma leen bàyyi leen ma man ma dem sëñ Tuubaa wéel loola ba mu ko wéelee bi jant bi sooyee ba sëriñ bi ne ci kurusam te kurus bi bu ci xasee ba nekk du wax ku yàlla bind ci la ndox suuf laale soxna Aminta Lo sëñ Mataar si la nee na li ñuy wax bàtt boobu moo am këll yi ñu yett da nga mën nga cee def ndox nee na ca la def ndox ñu toog ci ginnaaw sëriñ bi bëgg buy noppi rek moo wax ko xibaar bi ni mu dem diir ba yàgg lool ndekete lam jaayante woon daal yàlla nangu sëñ bi bi ci li muy def ba geesu dana ko xanaa soxna Aminta mu ne ko waaw mu ne ko anama mu ko laal ñu yóbbu soxna Aminta loo fii guy texe nekk tey boobu ku ñuy wax Moustapha Maroon dong nga fi nekk ci néew buñ fi suul te Moustapha Maroon dafa faatoo woon ci wet gi féeteeg njaareem ay bokkam ne nañ ko yóbbu Jolof denc ko fa bi mu dikkee ba tolloog fii armeel yi nekk yàlla dogal mu xàbbar ci ko ci kaw yi bokkam daanu boobu néew yi dañ leen di yem ñu ne ab néew fu mu daanu foofa lañ koy denc nekk tur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gi ñu ko tuddee moo tax bi mu dikkee ba tolloog armeel yi Sëñ Tuubaa yi Sëñ kii moom du romb sama armeel yi mukk di jàll néew ba daanu ñu denc ko fii guy texe nekk Moustapha mu doon looloo taxoon ñu denc ko fi bi ñu ko fi dencee soxna Aminta Lo moo ci topp moom lañ fi jëkk denc bi leen bi ko sëñ bi taxawoo ba noppi ci ni ñu war a taxawoo ab jullit ba dellu siwaat fii jumaa ji ci kër gi daa woo maam aw bu sa ba mu ñëw mu ne ko jëlal Moodu Moustapha mii ak Fallou di leen toppatoo te jël baara mii boole ko soxna Mariama Kunta di leen nàmpal nga xam ne sëñ baara maam aw bu saa ko àggaleel aw ween ci li ma bëgg a leeral ngir nit ñi xam ko waaye bi mu koy àggaleel weenu boobu soxna Mariama Kunta la yor ci doom nag kon sëñ baara ak soxna Mariama Kunta doomi sëñ Tuubaa yi ñoo fi gën a jamono fii jumaay Tuubaa ji nekk sëñ nag delloo na njukkal lool soxna Mariama Kunta ndax juróom-ñaari doom tudde na ko juróom-ñaari doom sëñ baara tudde na ko soxna ma dema kunta suñ waxee danaa dañoo bokkoon ween woo xam ne moom moomoon ween woo waaye mosuma cee siis na kon bu soxna ma dema kunta ganee jamono fii jumaay Tuubaa ji nekk ab sëtam ñu koy wax sëñ Matar Si la am suuf su toll nii lii mu fi def li muy nuru nuru nuru jàmbaare lu mu fi war a def la ndax moom doomi jumaa ji la te sëriñ Tuubaa léppam lislaam la lii moo waral sëñ bi mu ngóor a gi la amoon ci fas yéene lépp lu mën a defal maamam ci diine lislaam lu mën a taxaw bañ xam ne am na sët bu ne tuubaakat waaye mi ngi góorgóorlu bu baax a baax a baax di roy maam ja lu mu néew néew néew sëñ Matar Sylla moom ci ñooñu la bokkoon liggéey bi yaatu na eh, ndax eh, da nga am ay partenaire wala da am ay tool wala yan pexe ngay ngay ngay ngay àggale liggéey bi moom ëmb ay partenaire ma ay tool waaye am naa ay partenaire am naa ay tool ndax Serigne Touba sama partenaire mooy samay tool gis nga jumaay Touba ji li muy rëy rëy rëy rëy ñax ko murid yi rek ko defar sëñ bi daa woote ne dama bëgg sama jumaa ji ca Touba ñu tabaxal ma ko ba dig na leen ci sax ne leen bu ngeen ko defut jinne yi ak malaaka yi danañ ko def murid yëpp àndandoo doomam yépp àndandoo lu ñu am ñu def ko ci di fi sëñ Saliou jógee sëñ Matar si la jóge fi booba alaaji baara mooy xalifa général des mourides bi may dem di ko laaji ndigal ngir fas yéenee tàmbali liggéeyu jumaa ji alaaji baara daf ma wax ne ma jumaay tuubaay jii di bi ko sëriñ lu Mbàkke di àggale bu fekkoon dañoo yor machine bay ak machine ji may wommat fasoo sëñ Modou Bousso Dieng jàpp ca machine ba ñuy bay ngir di ko def ci jumaa ji lu yàgg-yàgg jumaa ji du àgg daan ne ma samaam sëñ Fallou di daa woo murid rek tàllal leen loxo kenn ku nekk lam am ak lam man mu def ko ci daan ne ma danaa la bindal leetar boo xam ne fépp foo dem na nga ko fa tàllal wane ne jox naa la ndigal képp ku mën a jàpp ci liggéey bi ji rek na ci jàpp leetar boobu nag yaataloon naa ko ci jamono yooyu lool bi alaaj baara yi dund ndax bitim réew réewi tubaab yi réew yu bari dem naa fa Portugal ak Espagne ak France ak Belgique Allemagne ak Suède fune dem na fa waye dama daan def fuma massa mas demit bu daayira yi dajé ba def seen daayira ba pare serigne sépp bokku tew ba tok dama wax président daayira bi ne ko man de li ma bëgg moy nga bàyyi ma ma jàkkaarloog taalibe yi serigne touba yi wax leen lima tax juk sumay wax ak ñoomi dama na leen fi ma tok kenn ma fi ma fi indi sama bop ndax diwoo ma yoni da yomb lol te lolou du doon dëgg dama na leen fi kenn yoni ma fi man mi ma fi indi sama bop far lu laa tudd Silla laa sant Touba laa dëkk waaye sëñ Touba sama maam nag ndax doomi sëñ Touba jur sama baay wut sama carte barkeelu ne leen juróom fukki dërëm lu waaye am te man koo def te yàlla tax na ma ko jox ma yóbbu ko Touba ndax jumaa laa ciy tabax léeg-léeg mu yóbbaale plan yi waaye nit ñi ñu bëgg lu baax lañ ndax foo man a demee wax dëgg yàlla la fay sa wërsëg da nga ca jot jàll feneen lii laa doon nab na bi boole kook njaboot gi itam am rek ñoom aadama jëw mii nga xam ne moom mooy liggéey jumaa ji moom may fu ma yekke sama làkk moom su ma nekkee bitim réew ba xubba bu mag bii sax bi ñu koy defar Amérique la ma fekk waaye ñaari fan ñett yu ne mu ne ma déet sëñ bi koy bul denc ma ko rek bul denc dara loo am yónnee ma ko moom day mel ni jumaa ji dafa xab yaramam day xasan ci jumaa xam nga ajuma koy liggéey fii ne balaa ajuma jot danaa fexe ba def ay taaba taaba ba am loo xam ne ñoom danañ danañ danañ ci a mën a a jàpp ngir liggéey ko ajuma ji waaye moom nag moom moo may accéléré rek muy ma fu ma yekk sama nag kon li ma bëgg a wax mooy jumaa ji moom li fi nekk lépp dongay Sëñ Tuubaa yoo fi def mm-hmm. ay juróomi dërëm fukki dërëm waaye li gën a yéeme mooy sëñ Matar si la dana naan ku aajoob nërta faju sa juróomi dërëm doo ko def ci liggéey jumaa ji mm-hmm. boo gisee liggéey bi yeex mm-hmm. nit mën naa am yéene def ci dara sax waaye ginnaaw sëñ bi moom dafa dogu woon ci maamam ne ku aajoob nërta faju bu ci def sa juróomi dërëm lii moo tax liggéey bi jumaa ji yeex daana taxaw léeg-léeg ay ñaari weer ñetti weer ñeenti weer waaye guddi yi ñu toll nag liggéey bi moom taxawatul ci genn fànn ndax am na sax dongo yoo xam ci man lañ sukk jébbulu dañoo gisante ci seen biir ñoo walanteeru ne dañoo bëgg weeru deeti kenn ku ne dogu ne man mën na maa joxe nangam kii ne mën na maa joxe junni kii ne mën na maa joxe ñaari junni kii ne mën na maa joxe saako ciment fi ne weeru dee sax yàlla dimbale na ma ba noppal nañ ma ba lu baree bari moom bala ma ko jóg di ko wuti sax fekk na ñoom ñu dajale dara loo xam ne la nga koy lañ cey mottali du bari waaye li am solo mooy liggéey bii jox ñu ci xaalis jox ñu ci matériel nu ko gën a képp ku ñuy dimbale te yàlla tax soo amee ciment boo ko indee danañ la ko ci defal boo amee ay xeer boo ko indee danañ la ko ci defal boo amee fer boo ko indee danañ la ko ci defal soo amee ay karo itam te bëgg koo indi te yàlla tax liggéey baa ngi nii tàllal nañ loxo ñëpp bàyyi wuñ kenn jox ñu xaalis daal jox ñu matériel buñ liggéey jumaa ji moo ñu ko gën a lii moo tax ma bëgg jullit yi gis ko rawatina murit yi liggéey bii nii ma la wax rek fi lañ toll lii itam lañ ci defagun ba egsi fii mu egsi tey liggéey bi eh, jërëjëf euh, mbokk yi lii nag mooy euh, li nga xam ne ni moom la Sëriñ Tuubaa doon ci yonent bi sallallahu alayhi amul bépp projet l'islam bu masaana am budul yonent bi da daan génn ca diggu pénc ma ne jullit ñi kat bés sangam war na noo xare lu waaye am na ko génnee indi fii noonu la daan def kenn ku nekk dem sa kër la nga ko am indi ko jaayante ko te loolu mooy liñ ñu lay dencal biir bàmmeel noonu la yonent bi àndee woon nag ay saxaabaam Sëriñ Tuubaa bi ñëwee ndono loolu la indi jataay bi ñu toogit message bi loolu lay wanewaat kon nag képp koo xam ne nii ab jullit nga te yaa ngi koo def lu baax te bëgg a denc sa alal fu mu dul yàqu projet ngi nii boo xamee ne néegub yàlla la ci biir Touba bokk ci ñi nga xamee ne nii seenu nekk biir Touba dafa neex Serigne Touba kon nag message boobu message bu fort la kon jullit ñi euh, képp koo xamee ne nii nag yaa ngi bëgg denc sa alal yoon waa ngoom léegi nag ndax am ngeen ay numéro wala ay coordonnées yoo xam ne ni ku bëggoon a dugal. ci sa sa liggéey. wala ku bëgg a jokk ak yéen ci liggéey bi nu muy def. waaw ah, <coughs> liggéey bi moom képp koo xam ne bëgg cee dugal saw ñaq numéro téléphone yii may bëgg a joxe soo ci wootee danañ la wuyu. njaboot si mataar si la gépp itam juróomi dërëm yoo ci jox nit dana ko teg sama loxo bii waaye ku ci bëgg a dugal saw ñaq te soxla whatsapp wala nga soxla numéro boo xam boo ci wootee da nga jote man mii numéro yii ma leen di jox ku ma ci woo da nga ma jot mm-hmm. moo xam dangaa ngaa moo xam danga koo dugal ci whatsapp bi mm-hmm. sama numéro bi jiitu nag mooy 77 640 24 87 77 640 24 87 numéro bii mën nañ cee woote ma wuyu mm-hmm. bu fekkee da ngaa nekk bitim réew boo wootee ci whatsapp bi ci numéro boobu yi danga ma jot numéro tigo bi itam. la 76 le 244 47 11 244 47 11 sëñ Adama mii nga xam ne mooy jëwri ni liggéey bi itam moom it juróomi dërëm yu ko ci waaye mas a jox ci àdduna dikk na ba teg ko ci sama loxo bii ne ma lii diw sàngam moom ak fi yónnee moom itam numéroom 76 la 698 698 42 21 mooy numéro maçon bi nga xam ne mooy tabax jumaa ji lépp lu waaye bëgg a xam ci jumaa ji ngir laaj ko ngir mu leeral la loo xam ne dana am loo mën a jàpp itam soo ko wooyee sëñ aadama Jaw la tudd fii la dëkk itam ci quartier bi soo ko wooyee da nga ko jot ci numéro yooyu waaye li wérte wóor daal mooy ñoo ngi ci tàllal jullit yépp loxo bàyyiwuñ kenn di leen sant bu baax a baax a baax nag di sant nag surtout maam Cheikh Ibrahima Fall bu ñuy wax sëñ Fallou Fall Mbawor soldaaru Serigne Touba la. boo xam ne liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba umput benn jaam ci adduna bi. nga bëgg ko sëñ Fallou Fall Mbawor bakkanam bi la teg ci liggéeyal sëñ Touba nga bañ ko ak loo ko mën a wax ci àdduna itam moom jaral na ko ndax sëriñ Touba jaral na ko lu ëpp loolu ne lay dégg de waaye du mukk sëriñ Touba jaral na ko <laughs> ndax maam Cheikh Ibrahima Fall boo gisee fu ñu tuddee sëñ Touba teg ca maam Cheikh Ibrahima Fall. maam Cheikh Rafal dafa teg Serigne tubaa fu kenn tegul Serigne tubaa defal siñ tubaa lu kenn mës sa defal Serigne tubaa moo tax Serigne tubaa defal ko lu mës a defal kenn. ndax maam Cheikh Rafal bi muy ñëw ci kër gi fekk na fi ay nit. waaye laa ilaha illallah ni mu rëyee ci lislaam mm-hmm. boo ci tegee faal da yaakaar ne dañ ko cee mooñaale. waaye man mii toog boo ne woon laa ilaha illallah si la li la nit ñi njëkk wax mooy da ngaa bokkaale yàlla <laughs> liggéey boobu nag maam Cheikh Fall daf koo liggéey te ku ñàkk jariñ mm-hmm. kon bu ab sëtam toogee ba jëmmi jamono nga xam ne heure bii nu toll information yeeg internet yeeg site yi dana tas ci adduna bi. am samba booy yoo xam ne lu leen neex la ñuy wax ci yoon yi. moo taxaw moom faaliwut ku ko saaga. faaliwut ku ko gërëm faaliwut ku ko wax lu baax. lépp loo mën a wax it moom Serigne Touba jaral na ko. kon sëñ Fallou noo ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax. tey ñaan suñu borom it nga gudd aw fan. bu baax a baax te di la encouragé te di la wan ne ànd nañoo yow ñoo ngi ci sa ginnaaw nag wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jërëjëf mbokk yi euh, kon nag euh, yéen a gisandoo wi Euh, déggandoo ko jataay bi nekk jataay bu riche di sant bu baax it euh, suñu sëriñ sëriñ Fallou Fall lii mu ci wax nii rek ñun dañ ci seede ndax fëgg nañ ko bis bu set euh, waxtu wu ne fekk ko it ci situation bu ne waaye lenn rek mooy ak bëgg mooy sëriñ Touba lu waay wax it da koy daal di delloo rek ci muñ gi Cheikh la daan muñ mhm. bi ñu koy attaqué ci bi muy défendre sëriñ Touba mhm. kon ñu koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan suñu borom fekk aw fanam guddal aw fanam may ko wér may ko kàttanu zahir ak baatin ba mu mën a àggale sumb bi ndax mënu woon a ñàkk ndax fii réseaux bi toll ci ak yàq jëmmam ji tax na ñu bëri respecté Serigne Touba ci bu ñuy wax mbaa ñuy def kon yàlla na suñu borom yokk kàttanam kon ñu di leen di tàgg bu beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi